mooy depuis bu ko sëriñ bi santaane ba tey yabal Cheikh Mouhamadou Bachir mu ñëwoon ci sëriñ di moom sëriñ Mor Fall Mbende di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall boobaak léegi kenn nelawatu kenn dalatu ndax euh, doy na sëkk rek ma wax ne njabootu maam seex Ibrahima Fall dem fi lañ yendu ngir wàccaay wàccaay bi euh, ci ay kuréel yoo xam ne euh, lu bare bare bari ci lu yëngu ci kër Cheikh Ibra ñoom lañ koy dénk bu dee lu jëm ti ci wàllu sëkkër si kuréelu Zikroulah sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane ñu ko wax maam Cheikh Zikroulah moo ko jiite moom démb fii la yendu fii la fanaan euh, bu dee lu jëm ci wàllu bernde yi euh, Serigne Modou moom Serigne Amdi Yacine kuréel gi ñu wax jës bu murid lëkkale sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi moom moo ko jute moom fii la yendu démb fii la fanaan euh, kon ahlu Baye Fall kenn desu démb nag dafa tombé ñu doon tàmbaliwaat liggéey bee ca Mbàkke nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ñu ko sant ngir ñu sopp ko daara mooy fi stade bi nekkoon waaye biñ fa yendoo teew délégation Baye yi ci ñi jiital ñoom fii lañ yendu ba tax ne suba teel la délégation xalif général de Baye Fall ñëw gis nga sëñ Falloum sëñ Mourabita ñoom ñu ngi fa sëñ Moussa Fall Falilou ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima rek buntu kër yëpp rek la ko tàmbalee kër Cheikh Moussa Fall ba ci kër sëñ Bassirou Falloum Cheikh Ibra jóge kër sëñ Bassirou Fall ñëw ci kër sëñ Momar Talla Fall jóge kër sëñ Momar Talla Fall ñëw ci kër sëñ Ablaye Fall Ndar jóge kër sëñ Ablaye Fall Ndar ñëw ci kër sëriñ Assane Fall Mboor jóge kër sëñ Aliou Fall jóge ko sëñ Mourou Mbenda ñëw ko sëñ bu Sakkoor ba ci Ngunda Debbo du doy maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh Fall Ngunda njaboot kenn ba kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor mboolem seex yi nga xam ne ne ñoo toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp ñëw nañ ñu ngi ci penku bi ñii ngi ci jullikaay bi ñuy jullee euh, ñi nga xam ne ñoo wàcc liggéey ñi ci def ñu ngi baas bi si def ci penku bi euh, kuréelu sikar bi fii lañ waxoon ne mooy ci jullikaayu iid bi nañ fi kuréel ànd ak yenn awkat yi su ko defee bu ñu ba mbooloo mi bari ñu wër jullikaay bi su ko mbooloo mi gën a ñu wër euh, bâche bi ñu def suñ nee ba nga xam ne nag gën naa yaatu ñu wër ko sëñ Bara parce que par organisation la waaye boobaag léegi gis nga dara débër parce que ñu war a jiite di dëbb ñu ngi dëbb ñu war a aw ñu ngi aw si kër sëpp ñu ko teg ndax tur yàlla Cheikh Ibra nee dama ko daan nooyee Cheikh Ibra nee na tur yàlla dama koy nooyee am na bis boo xam ne ku tedd ki dafa dem booba sëñ Modou Moussa Mbacke ñëw di seet si Cheikh Ibra Fall mag ñi nee nañ ca njëriñ du ko maam Cheikh daa daa yàlla ñetti yoon daa di wax kenn ci mag ñi ne ko demal ci Ibrahima Kane ne ko dollar ba ma ko dénkoon ca ndànd dollar na la ko jox bi maa Ibrahima Kane ñëw indi dollar bi Cheikh Ibra nuyoo ko sëñ Mourou Moussa Mbacke ne ko tudduma yàlla fi yow ngir tiitaange dama koy nooyee Cheikh Rafal ne tur yàlla dama koy nooyee moo tax démb euh, ci guddi gi nag biñ nekk ci organisation bi euh, sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Sonia ànd ak délégation bi ànd ak sëñ Youssou Diop jëwriñ ñu ñëw fii fren fekk Baye Fall yi waaw sëñ Cheikh Abdou Latif démb ba tey mi ngi baagante euh, waaye démb bi ñëwee fii yàlla lañ ko lañ ko tertoo tey njaboot bi xoolal kii ngay gis nii kii ngay gis nii jëmm jëmm ji ngay gis nii kii sëñ Talla Ngoune la bokk na ci organisation bi Cheikh Ibra Fall ay boo leen gisee ñu ngi takk seen laxasaay di wër kuréel bi bokk ci organisation bi pour wax ne rek sëñ Fallou Sylla mooy kër Cheikh Ibra Fall dara desul lépp luñ am ak lépp luñ mën jiital nañ ko ñëw ci bis bii waaye Cheikh Ibra lii day yëpp këram ndax xam nga yàlla yàgg na fi lool te Cheikh na ñëwul waaye foo ko tuddee sa xel dem ci Babou Mouridina te réunion wuñ ko waxtaane wuñ ko waaye sëñ Muntaxa xam na cër bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall am waaw mu tërale leen ko ndax Cheikh Ibrahima moom naka jekk daana wax ci làmmiñam ne jëmmuñ ko yàlla xar bëgg mu wax laa ilaha illa rek tax yàlla xar sëñ mët dem la ko wax mët dem mu ne ko Mbàkke mu ne ko jëmmuñ ko yàlla xar bëgg mu wax laa ilaha illa laa rek tax yàlla xar am na bis ta Thiès waaw am na bis ta Gébu Fall maa ngi nee nañ ma dañuy sëkkar ba mu yàgg saam seex ngi ci biir toog mag ngi sikkar comme nii ba mu yàgg mu sóob taw ndox mu bari nee bi mu sóobee taw bi di taw ndox mu bari mag ngi bay ñaan sikkar si dem di seelu taw bi seera Fall toog ba mu yàgg naa yaaram mbay mu ne Fall mu ne ko turu yàlla mu doon dégg lu tax déggtuma ko mu ne ko Fall ndax mu taw bi la ñuy seelu mu ne ko gën a ma toog ci biti sëñ yaaram jël sées ba teg ko ci taw ndox mi saam seex toog ci digg taw bi ndox mi di sotti ko ndox mi sotti ko di sotti ndaw ñi gis ne Cheikh Ibra Fall a ngi tawte ñu daal di génnaat par genn par kenn kenn par kenn Cheikh Ibra Fall ne ah, jàmm lu tax ngeen doom ngeen bàyyi tur yàlla bi ma ne ko fal dañ doon seelu taw mun naa doom bañ a xëm bañ a tooy bañ a xëm bañ a tooy daan naa doom bu leen bañ a tooy doom ndax yow mel am dara mun leen lakk ci jaxam bu leen bañ a tooy nga xam ne tey ji bu tooy bi doon sóob tey turu yàlla wi duñ ko bàyyi nii lañ koy ba seex Mouhamadou mu taxana nañ ñaan ndax samaam nee ku bañ a xam doo bañ a tooy kon euh, nu ngi dem te dellusiwaat daal. baax na jërëjëf euh, sëñ Mamour Ndao Baye Fall ci kàddu yi am solo yoo xam ne yëkkati na ko euh, ni mu ko waxee rek zikar si day wéy ba keroog sëriñ bi di ñaan ni mu ko santaane ginnaaw takkusaan la ñuy wax. kon mbokk yi fii ci penku jumaa ji fi nga xam ne fi la waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall nekk di fi dundal li xam ne moom moo di zikrulaa gi ci organisation bu parfaite la ñuy wax ndax nosee nañ ko noo xamante ni amul benn désordre ñiy dëbbee xam nañ fi nekk ñi aw xam nañ fi nekk. waaye nosee nañ ko noo xam ne bu demee ba salle bi fees am na ñoo xam ne dañuy nekk ci biti euh, di wër li nga xam ne ba moor julleekaay bi bu ñu demee tamit ba foofu fees am na beneen bërëb boo xam ne waajal nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di awukat yi donc mbokk yi ñu bàyyi leen rek ngeen wéy euh, teewlu li nga xam ne moom moo di Zikroulahi gi nga xam ne moom mooy am fii nii euh, ci penku jumaa ji ci bis nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou santaane la la Oh, रहा a la داود خاخ داود خاخ لا لا yaa rabbana bi xurmatil quraan wa bi rasuuli dayaan wa bi barakati xuruufil quraan wal axaadiisil qudsi wa bi xurmati xuruufil qasaa'idi